diggante moom ak Zoss la woon coow li bari nee naa leen dañ leen di toppal làmb avant pendant après yàlla dogal moom mu am ndam ci kaw Zoss mu ne woon xale laa damaa juumoon Zoss ne woon ko dafa am lu ma bàyyi woon dama koy jël si moom mu ne ko dooma téye tey confirmation am na dinañ waxtaan ak moom ci wàccaay bi waxtaan ak moom ci maas bi nga xamante ne moom la wàññi ndax maas biñ ko doon gisee ak bi bokkul lan moo ko waral ndax tegtal la wala komba bi lan la ko jaraloon Ada ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax félicitation. maa ngi nuyu di leen ziar di leen fay ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Jawla ak Misbah Kalafal maa ngi di leen ziar di nuyu ndigal Kalafal bu baax bu baax ñu jaakara bu baax nuyu sama sëriñ dama Kumba Fall bu wér a wér nuyu Abdoulaye Diop sama papa sama lépp waaw di nuyu sëñ Mor bi tamit bu baax a baax a baax <laughs> di nuyu àdduna. waaw di nuyu diaspora bi yëpp waaw di nuyu tamit Sa Touba bu baax a baax waaw bu baax. macha allah ñu gis saa booy communiquer rek da ngay ne damaa juumoon par rapport ak ci li nga jógee muy sa diggante ak nga ñëw am Zoss coow li bëri ñu ne Zoss day xeex Ada Fass du xeex préparation bi juumte bi nga wax lan la woon. Ndiaye tamit maa ngi koy nuyu waaw ak Fallou Fallou Dour moo sëñ Fallou Dour moteur waaw làmb làmb la rek. làmb lépp tetal la waaw am na fu ñu am na fu ñu am na yenn làmb yoo xam ne ku ko seetaan dana xam ne loolu tojtal la tojtal daa fu ñu bëgg a jëm si làmb. kon maanaam yow nangu nga ne da ngaa juumoon. la tojtal ah, daa lu ñu bëgg si làmb. Ah. te loolu loolu mooy tax nga yegg fi nga bëgg a def. waaw. Ah. daa balaa muy gën a métti nga dem ba egg egg te mënoo ko jot boo ko amee fii kay boo demee egg di nga ko am. ayca combat bi lan la la jaraloon sa digganteeg Zos nga nekk xale mu nekk mag ndax olof Ndiaye nee na ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toog nga ñëw tey rëñe ba ñëw egg si fi nga xamante ne mooy sa diggante ak Zos lan ngay wax àdduna combat bi lan la la jaraloon. waaw combat bi waaj nañ ko rek waaj nañ ko liggéey nañ si lu bëri ndaxte combat bi boo gisee lépp athlète lañ ko liggéey athlète viva vivacité waaw man vivacité laa soxla soxla mu diis. xam naa ne waa ji maa gën a suufu yenn yenn yenn geste bu ma koy def moom day day ah, poids bi daa bëri day direeku xam na ni daa dem États-Unis ñëw mu at liggéey athlète rek def mm. fitness boo koŋ. Mm-hmm. mais gars yi laa xeeboon ne aada dafa tuuti ci combat bi maanaam combat bi Zos moo laajoon masse bi ba tax nga euh, at liggéey li nga xamante ne mooy athlète. waaw sport de combat. wala say coach ñoo la digal lool. daa am sport de bu nekk ak lu mu laaj bi lii la laajoon ma gaaw ndaxte bëre laa soxla soxla ma taxaw di xeex wala di buuxante. yenn poids boo ko amee da ngay taxaw di buuxante wala nekkoo di xeex wala di yàq làmb. moo tax tey ñu ayof suupul moom suñ bopp bëre lu neex suñu supporters lii rek lañ bëgg suñu bëre waaw bëre rek lañ bëgg suñu te def nañ ko. Ah, dañuy yeggali làmb ji mais balaa loolu démb nga préparé combat ba mu des ay minutes ndax ku préparé combat ay weer ba mu des ñu ne suba la loolu mën nañ ay heure moo ci des ñu ne la sa adversaire dafa def soog blessé na lan nga jëkk a xalaat. waaw loolu noonu tey jii bu ma ko yëgee dama xam na ne suñu borom rek tey loolu bu amoon tamit dañuy jàpp ne yàlla la rek. parce fi moom yàlla rek ay dogal. waaw lépp yàlla amaana. Mm-hmm. waaw mais instant yoo moom xawoon nañ am dut si làmb ji. daal sama gars ma ne garaaw dañuy bëre. dañuy wax ma ne damay bëre ba si tey ba fa yar ba ay 10 heures ay midi sax ba heure bu ñuy dem sax jàpp ma dinaa bëri. dinañ ba isaan na ma gis waa laa am confiance am ne damay bëri waaw. ñu ne loolu tojtal la aada commencé woon na xëpp ay bouteille jot nga tuur ay bouteille wala gars yi dañ doon wax noonu. non man dama xam ne ne contrat laa yoroon te damay si sama sama contrat man dama koy dama koy dama koy dama koy eggale ba mot sëkk. waaw ndaxte laamu laa sekk ak ñoom bëre. waaw. tuuroo benn bouteille ñi wax ne aada jot na tuur bouteille maanaam demoon na ba jàppatul ne day bëreeg Zoss. man du ma mos a nekkul Zoss rek moo nekk sama kanam. Hmm. waaw fu a jëm si laamu daal. dinañ lan nga bëre tey gars yi ne Ada Fass du xeex bi arbitre sifflé génn sa diggante ak Zoss lan nga bëre. waaw génn arbitre sifflé na génn sama ma dëggal sa bopp def yi fa booy rek ne maay xale. mag moom diriger xale rek mooy diriger moo sama ña sama combat yëpp maay diriger ñëw diriger li ma yàlla may mu jal jël ndaxte làmb noon la say supporters loolu nga leen mën a bégloo nga ñëw wane sa bopp waaye waxuma ngay taxaw foofu di jëmale 15 minutes wala ay 30 minutes man damay ñëw bëree sama làmb xool lu ma fi indi lu ma fi indi daal moo ma ñor mm. waaw ma ñëw dëggal sama bopp ma ne sama bopp ñu ne aada du xeex aada déclenché xeex bi bi nga déclenché xeex bi lan nga bëggoon raak nga bëggoon ngeen jàmmaarloo am jaay joxal jóob wala am jóob joxal jaay lan nga bëggoon ci déclenchement bi wala da nga ko bëggoon a euh, am foo ko jàpp woo ko ci xeex te du doon loo xam ne da koo gëm wala loo gëmoon la non door dóor lañu wax bëre dóor lañu wax cokkaasoo aada du xeex du xeex moo tey ma ñëw dëggal so dóor ko dóoraat ko mm. <laughs> waaw ku yi nga door sentir nga ne dal na moom waaw door naa ay coup moom door na ay coup ndaxte ku nekk waaw foofu góor la rek ay coup moom day taxar naa si mm. waaw. d'accord bu fekkoon am na vivacité comme yow ngeen daje euh, rëpp tey bu gaawoon combat bi njaax lay doon da ngeen koy séddoo njëkkante la woon wala. du njaax ndaxte foofu noonu dañuy gis dañuy gis combat di seeg rek bu gaawoon ni man di nga xam ne <laughs> leneen la fi fekk. waaw boobu leneen lan la fi fekk. non bëre bu wow kooku rek. ndaxte ñun dañoo fooy bëre mun ko. kon bu boobaa da ngeen di wuure. waaw dañuy bëre rek <laughs> dañuy bëre fan nga jàppee confiance na tey fii jeex na foo jàppee soo sa nga fii moom jeex na ndam li day dem faas. waaw oh, confiance man laamu bu ma am bu may dem confiance laa yóbbu. Hmm. waaw sportif laa lu ma entraîné laa gëm ak sama bopp combat bu ma dem dama yóbbu sama confiance hmm. xanaa suñu borom ñëw ak dogalam. Hmm. Aada Ndakaaru saa buy coow li bëri coow li lan la yaa ko bëgg wala làmb ak li lan ah, yàlla rek <laughs> coow yàlla rek du man de yàlla la waaw ah, amaana yàlla mooy maye di nuyu ñu caayu féete ginnaaw yëpp tamit waaw ah, di nuyu bu baax a baax dinañ làmb ñu ñoom laa waroon bëreel waaw yàlla may na ma de maa ñaanal jàmm bu baax di ñaanal natt bu leen suñu borom teg yàlla na jeex jàmm ak salaam képp ku caayu féete ginnaaw maa ngi lay bëggee bu baax dina la ñaanal jàmm. Hmm. cey loolu aada fu jëm gars yi nee nañ fan la aada faas jëm. non man làmb laa fi nekk rek sport laay def sport laay def làmb laa fi nekk rek ku ñëw rek ma bëreeg moom. waaw loolu. moo mm. tudd lu ma tudd mbër du ma wax maa ngi samay entraînement daal nekk sama bopp waaw maa ngi sama entraînement nekk sama bopp. Mm. Mhm. gars tëggal la suus. supporter di ko wéy na suñu mbër day suus di bëre maa suus di bëre wóor na aada. non loolu loolu yàlla si yàlla non man Baye <laughs> du suus. non man xaw ma yooyu de Baye laa taalibe laa. yow la ah, rek Café Touba jeex na tàkk waaw ah, kese. amul leneen amul leneen ah. noonu ana may paa Père Koundoul. ah sama paa moo fi maa ngi koy nuyu bu baax di ko mastaw si entraînement ak lépp moom moom amuñu fayam. suñu papa la suñu lépp la man sama xarit la sama papa la di ko nuyu di ko jaajëfal di ne kontaan bu baax gis naa entraînement entraînement yi fay na waaw moom lii rek la ñu bëggal waaw ñu am ndam moom muy bég na amour rek la am mais bu ñu amee victoire ñu ñoo koy ñu ñoo koy féete quoi père maa ngi lay bégee kontaan naa bu baax waaw dellu si nga dellu si kom ci père wala père moo fan nga ma fekk ni fii ban dëkk la. fii lañ dëkk ñu ñëpp. waaw dañoo bokk lu ñu mënut a séddoo. Hmm. sama papa la sama làmb man dama doon téye cumukaay ñu tuddee ma cumukaay may toog cumukaay mbër tarbiyu làmb. ban mbër nga doon toogal cumukaay. bëri na jarul ma koy tudd na may toog. kase <laughs> may téye ay cumukaay damaa tarbiyu làmb damaa tarbiyu làmb bu kese kay bu neex nangan sàmm baax nangan sàmm maa ngi lay bu baax. ñoo jot bu baax a baax baax nangan sàmm gis naa li taway si laamu ji. bu ñuy tëj nga nuyoo ba kontaan duñ ci dagg dara mais gars ñu ngi wax adversaire aada. tey am nga ñoo bëgg a bëreel ñan nga bëgg a bëreel tey jii ñan nga bëgg a bëreel aada kan la war a bëreel ñan ñoo nekk sa kanam. déedéet man la sport laa fi nekkal. waaw loolu kenn waxatu ko. déggoo ma 10 avance bu taxawal léegi ma jël lépp. mais am nga koo si gën a choisir entraînement mooy sama kon ku làmb mo làmb ku ma booleel rek ma bëreeg moom ku ma làmb booleel ma bëreeg moom. sa gars yi sànq ñu ngi wax. non man xale laa man. fan ngay ah. dugg waa fooy dugg foo ma fu ma jaar yoon la. parcelle ngay delluwaat. non parcelle wala Pikine nga jëm. Eh, parcelle wala euh, jàmm gën nga jëm. parcelle close naa fa quoi garaawal parcelle moom mooy loolu lii rek ma ma booleel ñoom léegi jeex na. jeex na non du ma booleel ak ñoom. ay non non bilaay laaw dama bëri waa parcelle sawaay wax leen si leneen léegi Lamine xam la may wax ji si ndam bu koron bi nekkee parcelle la non doo dama bëri ñoom ma ba ma jox ko rek mu jë ah ma jox leen ko mu dem feneen nga jëli waaw noonu la demee ah bu koron day bàyyi ba koron bi bu nekkee parcelle day bàyyi ba mu dem beneen quartier mosoo koo jël Lamine man dugguma si laamu pour bërintu daa am li ma dugg si laamu déggoo ma de wax laa la wax bërintu laa la wax bërintu bërintu taxul ma dugg si laamu. lan moo tax moo tax ma dugg si laamu fi ma fi ma toll nii ma bàyyi ko daa li ma bëgg ko waaw kon du ma naree bërintu yenn combat yi ni nii man ma bàyyi laamu. Ah, maanaam maanaam. ma bëgg dem si laamu te amaana jamono jii ni nii incha allah waaw li ñu olof Ndiaye li wax ku ñeme dañ laa dee. amul lu may tiit. ku ñëw amul problème man mun maanaam maanaam yow ni ma déggee mbër bi nga war a bëreel nekkul parcelle. jamono ji maanaam laaw ku ñu boole rek mais foofu noonu mooy loolu. kon parcelle daa amul mbër nga bëgg a wax. déedéet ay jàmbaar foofu roi des arènes bi daa amul ñi nga soxla. non déedéet pas parcelle foofu sama sama nit ñoo fa nekk samay xarit. Ah. samay lépp amaana laa mujjee la war a xam nga rek. Euh, bis moo ñu booloon te sama grand la jiitu ma si làmb waaw mais ab champion yaa ngi si laamu ji bëri nañ man ku ma jox bëri naa ko bëri ak moom ak ku ma mënti doon. d' waa Parcelles léegi nga bëri ak ñoom léegi foo jëm jàmm gan. <laughs> wala Géejawaay wala Pikine jàmm gan ku fa wala boog ñan ñoo ne amaana lu na lu ma gëm quoi du ay mbërën du ay man du ma tudd benn mbër. waaw am na lu ma gëm te incha allah maa ngi si kawam maa ngi siy dox te amaana incha allah rek lu yàgg yàgg xale màgg na xale daa màgg de. maanaam yàgg yàgg daa ngeen daje. xale màgg na de xale màgg na de xale moo ngi màgg te day gën a màgg. Ah. guy gi sama waay ji wax na ko am na amateur ko wax moom beneen xale bu ñu ko boole bu ñu ko jëlee ba mu dugg ci moom. Ah. beneen dugg beneen dugg ba nga dee ci stade. yaa ko wax buy gee ko wax léegi. Lamine Lamine Lamine lamb la sport la rek. ah tey jii tamit ñu lamb boole sport la dama koy damay bëri ak moom. man amaana kenn mënu maa dóor si làmb man mosuma dem ardo déet mosuma dem ñaari combat mosuma dem ardo da ngaa bëgg a dem ardo sama kanam nit ma wax nit ma laal balaa nga may laal ma la waaw da na mu dem ardo da ngaa na mu dem ardo naani soow waaw damaa bëgg a waaw loolu dem naani mais wala soow waaw gars sama kanam bi taf tafaan ma yëngal sama teer yi mais ardo xam nga lu fa soow moo fa am wala mais si bëgg a naani yow lu ñëw baax na waaw ñun fii fi dugg tey tey dafa ah, day day ah, ma la sama waay du génnaat mukk bu duggee léegi léegi ñu ataaya ataaya lañ koy teg instant yi booy commencé nañ di xaar. xanaa avance bi nga bëggoon. booy commencé nañ teg wax. te lu doy waar laa wax sama prochain adversaire moo am problème garaaw. Ah, doon. garaaw laa wax sama prochain adversaire yoon bi lii war nag ah, waaw moo ñu rek. kon lépp échange sant yàlla bu baax suñu prochain adversaire ah <laughs> lu mu liggéey doy lu mu waaj doy. ci ah, bépp côté nag. loo koy indil loo koy indil. déggoo ma de. seytaane côté. Ah, di ñaan ñëpp jàmm di bëggee sama supporter bu baax. waaw sa génération benn message laa lay wax tey fii nga takk ko man sama morom ma nar a bëraat si làmb ma bàyyi ko. Ah, ay wax lu sama benn morom si làmb ma bàyyi. dégg ma de man instant yii nii làmb nii ñoo ma soxla de. sa waay sport moo ma soxla ndax de xale laa. mais sama moro mën a rek gëstu bàyyi lamb waaw. maanaam yow amoo tànk ginnaaw. xaw ma ko. Babacar xaw ma ko. amaana. lépp bokk li ñuy wax yàlla la fi yàlla rek a fine ne. non xaw ma mais man damaa daan samay moro ñoom ñëpp laa daan. waaw samay morom ñëpp laa daan ñoom ñoom dañoo tardé ñoom ñuy tëb di dal yëpp dañoo tardé si lamb amaana ñoom bu ñuy bëre sax man bëreeguma. ne yàlla mooy maye te yemalewul suñu juróomi baaraam yi sax tolloowul kon lépp yàlla la man mënuma may sama bopp combat bee passé damaa ngemb sama bopp dem daanu ñëw tey yàlla may ma ndam kon lépp yàlla la waaw. maanaam aada maanaam. waaw ma ne Zarko da ñëw ma Zarko daan ma tey mu ngi nii waaw tey ma ngemaa sama bopp am ndam. ay kilifa yu woo koŋŋ ngeemu ma am ndam yu woo koŋŋ rek xeeru géej. maanaam aada amul tànk ginnaaw jamono ji. léegi ci kanam rek nga jëm. xam nga xale kon instant wax wax baaxul wax baaxul mais ñun fi ñu bëgg a jëm si làmb dañ fay egg. Mm-hmm. lu wow koŋŋ laa di wax nag xeeru géej. xeeru géej maa leen gën a wow koŋŋ. ci ban côté bopp nag fu jëm dama fay dem. Mm-hmm. ah ñooñ ñooñ dañu fekk ne seen grand frère ya fay bàyyi laam te dañ koy jëli force indi ko fii. Ah waaw waaw guddi guddi fii. yox la jëli ko. force la incha allah rabi. waaw tey lan ngay wax Zoss mu téye carrière am mi ngi premier grand combat mi ngi ko bëri 2003 boobu nga xam ne mooy Issa Pouye ba tey mu ñëw bëriwaat ak yow 15 ans après mu ñëwaat bëriwaat ak yow. kon nag te te 2003 bu fekk bu ñuy wax. 20 ans waaw 20 ans après après yow tey jii nga ñëwaat di bëri mu depuis côté boobu ñu fekk nga am 5 ans ci biir wax. waaw yow tey lan ngay dénk Zoss. ak plan de carrière bi nga jàppante ak moom. Mm-hmm. lan nga yëg yëpp te bëgg nañ ko. waaw moom làmb noonu la rek. moom na bu mu fekkee ay magam da leen puus waaw nga sport xale sport tey jii yow man mun naa yëngu 24 heures mais mais keneen ku yëngu 24 heures day bàyyi ndaxte man xale laa mm. day sport xale moom boobu ba léegi mu ngi si làmb gàcce nga làmb laa koy wax gàcce nga làmb Zoss mm. la dafa daan ay champion waaw duma leen daan leen ñu bëri ñuy coow si làmb daan leen kon tey moo bëri moom ba tey yàlla may mu ndam si kaw dama koy sant yàlla di ko nuyu bu baax man Zos la ma doon woowee Zos ma nekkee xale di jàng mais Zos ma daw bàqu bàqu bi may nekk xale. maanaam da nga ko doon ma nekkee xale. amoon ci làmb ji wala dafa tekki ngeen moom yow bi nga jàppante moom la Zos champion la Zos Zos xam nga sport xale sa ay ca aada ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la nga dallu di la féliciter di encourager Zos ndax lamb noonu la tey kii day xaar kii day dem. Zoss démérité wul li nga war a def yëpp def nga ko tey yàlla Ada Fass la àndal ñu ngi lay bàyyi suñu mbokk internet yi nga nuyu ko la neex gërëm ko la sax. waaw maa ngi sant ñëpp di bëggee diaspora bi ñëpp waa États-Unis waa Espagne waa France ñëpp lu ma limee rek damay juum. combat bi incha allah laa doon ah ma toog fi waaw xanaa gisoo fii laa toog waajee ko te incha allah li ma sama prochain adversaire incha allah jëm naa ko déggoo mooy sama prochain adversaire moom maa ngi nii ñëpp. waaw di sant ñëpp war na rasulilaay sëñ Ablaye Diop xaas sama papa ji amu sa fay sëñ Mor sama lépp di ko ñaanal jàmm rek eh dégg nga mooy si lañ jëm. INSEP si dafa pari lañ mu daw ah, ku ma làmb jox la baax na. maa ngi sant samay supporters bu baax. waaw samay supporters yëpp maa ngi di sant waaw. waaw di sant ñëpp di sant sama bàjjan bu baax baax moom mooy baay mooy ndey mooy lépp. sama bàjjan dama fayam. bàjjanay baay mooy sama lépp. Mm-hmm. waaw di nuyu sama waajur bu jigéen bu baax a baax sama waajur bu góor bu baax a baa di sant ñëpp ñëpp képp ko jàpp sama lamb rek maa ngi lay sant dila la gërëm. barki borom Touba Abakara Baye Fall bi maa ngi koy sant bu baax. di bëggee Fass Medina Gueule Tapée Grand Dakar HLM Waagu Ñaay Jëppal Waxam Ngor Yoff Jëppal Baobab. Colobane. àdduna man bu ma limee rek damay juum ndaxte àdduna la daal waa Pout ñëpp barki Serigne Saliou ay Guédiawaye Pikine ñëpp man fépp laa am waa Gambi waa Gambi Gambia maa leen di bëggee ba Casamance Touba tamit Touba gis naa ñaani bu baax di bëgg di nuyu tamit Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noreen bu wér waaw. kon Gambien dañoo ñëw. <laughs> ñëpp ñëw si làmb ji ñëpp ñëw si làmb ji maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. dégg naa waa dañoo ñëw loolu am di nuyu tamit waa jàmbaar production di ne di ne dema dema làmb ji bu mu xawee def nii sama sama xel xawul xaw xawul moom ñoom ay lañ. daa jàmbaar sànq sax bu ñu tëgg rek xaw a def nii. Hmm. moo tax ma teg sama lépp. waaw jàmbaar maa ngi nuyu maa ngi koy nuyu assurance waa jàmbaar production yëpp maa ngi leen di bëggee di bëggee Zos nekk naa la sees ñu def benn ma gën a xam benn ataaya. jaajëf waaw noonu la demee waaw. ana dégg naa waa Mouride dañoo ñëwoon supporter àdduna la. waaw ana naa di